dellu di sant di gërëm di xool ni nag di la dénk seen bopp di la wax ni la ñun ku ñu jàppale rek lañ bëgg jigéen ñi amuñu liggéey ñii ngi ci njàmpe yi ñii ngi jaay keccax ñii di jaay euh, jën ñii di wëreelu ñi ci des toog ñun nag ku ñu jàppale accueillir ñu tenir ñu ñu jàppale la loolu la ñu bëgg. tamit jigéen ñi dañoo sonn dañoo yàgg daw ñu ñuy nax di ñu indil ay problème ay erreur yu dul jeex. ñu nekk ci nag topp ci rek Khady Gueye nañu nag carrément léegi nag dañoo war a delluwaat ginnaaw pour xool bu baax toog am na nag ku ma leen di indil koo xam ne moom bu soobee yàlla dinañu jàppale. boobu ba tey nag ñu toog noonu ñëw nañ fi ñaari yoon ay mitin yi dul jeex macha allah mbooloo bi yëpp ñëw jóge jannatu jóge fu nekk ñu daje fee pour waxtaan si jigéen ñi nag ñoom wutuñu dara dul ku leen jàppale jàppale financé leen utal leen liggéey. defal leen ay projet defal leen ay financement yoo xamante ni à long terme lay doon. Euh, li ñu bëgg nag ci nga ñu fekk ndax déjà dañ ne bu rusul toj ndax kii ngay xam ne moom la tax a jug sëñ bi ne da nga koy jàppale pour ñu xool nuñ nuñu nuñu ko nuñ ko mayee mu mu dem euh, ensemble muy président Macky Sall pour mu am majorité bi nga ñëw fekk ma waxtaan ci ak man fekk loo xam ne ni mu nekk ci suñu xool xañ na. bëggoon nañ ko mais mënuñu ko parce que gis nañ dëkk bi ni mu fi demee président Macky Sall ku ne gis sa Touba spécial la wax moom bi mu defee autoroute Ila Touba ba pare ñu ne noonu bourse familiale yi dëkk yëpp ñooy kaas région yi ñëpp ñooy kaas président ni mu bëreelee loxo Touba maa ngi koy wax jigéen ñi léegi ñi ciy bénéfice wu ci Touba amul kenn ku koy bénéfice wu ci Sénégal ci nun toll ñëwati noonu mu jël hôpital bi nga xam ne moo gën a mag ci ci ci ci Sénégal gi yëpp mu def ko Touba loolu nekk fierté boo xam ne nii ñun ñi nga xam ne ñooy muri yi ci suñ bopp ñun ñoo waroon sax koo xam ne fekk la woon ngay ngay politique sax di nga jóg na ah man kat naa jóg dox ak sama tànk jéem a xool nu président Macky Sall gañee Touba parce que lii doy na waar te ku ne ku ne gis na sëñ bi li mu ko wax. ñoo na fi élection locale yi ku ne gis na sëñ Mountakha kenn du ko neel ñëpp ko gis ci réseaux sociaux yi. mu ne ko boole naa la ak sëñ Touba ndax li nga may defal ci sëñ Touba tax ci dëkk bii sëñ boole naa la ak sëñ Touba sëñ Touba rek moo lay moo lay dimbalil boppam kon nag loolee ngallaawaay ñun ñi waruñ cee des ginnaaw ba ko ñaareel nag sëñ bi ñun jigéen ñii jigéen ñii dama ne ko falu jigéen ñee la fal kon nag nañuy geesu jigéen ñi bu baax sañ bi di leen jàppale bu amee bu ñu defee formation yi. buñ defee formation yi ba pare formation yi muy am suivi ñu jàppale leen ñi am ñi bénéficier wu ci ci ci projet yi ndax jigéen ñi kat jàmbaar lañ fii élection locale yi ay oto laa leen yónnee dañuy yendu di di jël ay nit ñi dem di voté ji di voté ji di ba mujj chauffeur bi na ma soxna si ñun fii heure bi ñu joxoon jeex na bende mi woowaan ma na ma nañ ñu dimbali rek parce que ñu ñi jeexagu ñi ngi voté ji ba te wax dëgg yàlla am jàmbaar lañ local yi nag man demee moo woon ci sama parti ndax dafa amoon lu ma ca metti waaye loolu ma ca metti lépp sëñ bi tey ratifié nga ko ndax ñëw nga na ma dama leen di jàppale dimbali leen yéen jigéen ñi ngeen wax ma li ma ci man ci seen soxla li ma ci man ci sama doole naa koy def li ma ci mënut tam jóge ci président lépp lu ma ci man dinaa ko def ñi la ci sant bu baax a baax Mbàkke ndax loolu lañ bëggoon. ñu ngi ñëw fii muy olom gi si janatu Mahwa seet si soxna Khady Gueye mii nga xam ne. yaakaar naa ne bu ko nit ñi gisee rawatina waa Touba nañ xam ne soxna si soxna su am pësteef la soxna su jàmbaare la rawatina dëkk bi ñu nekk muy dëkk bu sell bi muy Touba. boo gisee ma wax loolu mooy dafa doon soxna soo xam ne yàgg na di jàppale président Macky Sall di si taxawaay taxawaay bu rafet fii si dëkk bi muy Touba ñu xam loolu. bàyyi ko xel daan ko suivre ba yàlla dogalee nag nga xam ne liy jot jot na ginnaaw tey te ñun ñëpp suñ yéene ak suñu taxawaay muy seen excellence monsieur président Macky Sall daal di am ndam eh, am majorité assemblée nationale. loolu moo waral tey suñu tànk yi guddi ak bëccëg ñuy dox si loolu xam naa ne soxna Khady maa ngi lay xamal ne ne am na ñoo xam ne tey dafa am foo xam ne dañ faa jaar. ñuy gagné de temps moo tax agsi wuñu fi ndax ñu ngi foofu si barab boobu wax naa la ko léegi. ñoo xam ne si délégation bi lañ bokk. ka si mën a cité mooy sëñ Minicar mu Serigne Saliou waroon naa ànd ak man ak sëñ Mouhamed Silla mu Serigne Saliou moom it war na ànd ak man ak Serigne Saliou Diakhaté moom sëñ Makhtar Diakhaté mooy waroon naa ñëw wante dafa am foo xam ne ñoom it ña nga fa dem teew lépp ngir defar liggéey bi liggéey bi rafet wante dañoo waroon a ñëw fii nga gis leen te ñoom. si luy defaral président Macky Sall si la ñuy dox comme ni ma koy doxee. ma leen di seddal yéen mbooloo mii seen taxawaay ak seen nekkin gis nañ ko bu baax a baax di ko rafet rafetlu soxna Xadi nag ma lay wax di ko wax mbooloo mii nga xam ne yaa nekk seen kanam président Macky Sall dafa doon nit koo xam ne réew mi dong ko ñor muy Sénégal ba ko réew mi ñoree Sénégal dafa bàyyi xel Touba gi nga xam ne moom lañ am te boo xoolee lim nga ko sànq. kuy waxal yàlla te am say bët xippi di ko xool jëloo witteen saañ ko say nopp bañ a dégg président Macky Sall li mu def Touba ginnaaw dakaar yaakaar naa am na raison yu bari yoo xam ne amuñu ko la ma say joxe exemple mooy Ila Touba bi wax nañ ko waxati ko te loolu mosu fee am hôpital bii yéen jigéen ñi yéen la ko président Macky Sall daanaka defal ndax da ngeen daan am tawat yàlla na yéex ngeen di jéggaani di ko wuti feneen mu tabaxal leen hôpital boo xam ne dafa mucc ayib te man dem naa fu nekk wante benn la si Afrique mu jox ko waa Touba kon président Macky Sall li ko war warloog dëkk bi moo ngi koy def la ma say dolli muy assainissement bi jël na ay milliards def ko si boo xoolee mbedd yi yaatu fii yëpp Touba def na ko tëdd financement yi xëy na nag na mu waree ñëwee na nga ko waxee ak si wut wante yaakaar naa am na yu bëri yoo xam ne président Macky Sall dugal na ko si dëkk bi kon may wax yéen soxna yi yi ngeen xam ne yéen laa fekk si tey xam ne xam nañ ko si taxawaayam ak si yéeneem ngir président Macky am ndam am majorité assemblée. kon ma leen di dénk yéen soxna yi am na ñoo xam ne yàq moo leen tax a jóg ak wax wax yu ñaaw président Macky ñoo ñooñu bu leen leen déglu ndax président Macky la nit la koo xam ne am na yar am na teggin si liñ xam si moom. te jox na kii fi nekkal Serigne Touba wor ma goo xam ne ñun xam nañ ko fa la yàlla booleel lu mu ko wax Serigne bi wax ko président Macky Sall président na na ko defee na ko Serigne bi bëggee te ñun xam nañ si dara. am na loo xam ne opposition bii fi nekk te ñun xam nañ leen ñu si bëri seen intérêt personnel moo tax ñuy jàppale seen nit ñi di leen wax ne président Macky Sall faaliwul waa dëkk bi nooloowu leen lu ko sëriñ bi wax du ko def loolu ñuy wax ay waxi wax yoo xam ne dara du si dëgg ay kàcc la ni ma ko mën a waxee. ñoom dafa am loo xam ne président da def si dëkk bi muy opposition bi loolu mënuñu kaa tëddaale di ko nelaw loolu moo leen di déranger loolu moo leen metti te loolu feek ñu ngi dund. feek président yàlla nga koy jox réew mi loolu muy def si Touba du ko bàyyi mukk ndax Touba gi am na fu ko président teg bàyyi na ko xel ngir Serigne Mountakha mi nga xam ne doomoo na ko jox na ko kilifa Serigne bi nangul ko ko. ma leen di wax nag ne président Macky Sall am na si yéen yéene te soxla soo xam ne soxna Xadi mii xam na ko si yéen ngeen jox ko soxna Xadi mii wax ko soxna Xadi mu wax ma ko bu soobee suñu borom mu dugg si nopp président Macky Sall. nana leen ko saafaraal ba ni mu koy saafaraa yeneen jigéen yi nga xam ne ñu ngi nekk fii Touba ñu fay dem fan yi yëpp nelawatuñu yenduñu ngir président Macky Sall yàlla defal ko majorité assemblée. kon soxna Khady ma lay wax ne la ñoo ngi lay sant di la gërëm di la ne ànd nañoo yow ngir lan ngir président Macky Sall yàlla mi nga xam ne dara tawu ko si kattanam si baaxub Serigne Touba suñ borom jox ko majorité assemblée li yéen nag jigéen ñi da ngeen see am solo muy li ñuy ñëw di leen ko jàppale. dañoo bëgg bu élection yi jotee boo leen amut kaar ngeen wax ko soxna Xadim yi ne nañ leen wut ay waruwaay yoo xam ne nañ leen yóbbu seen bureau yi ngeen jël seen carte électeur yéen ko moom ngeen wooteel ko président Macky Sall mu am majorité assemblée bu defee li ngeen soxla loolu na nañ mën a ñëwaat si yéen daal leen siy jàppale suñ kémta lay kattan te bu leen nangu mbojo mbojo yi nga xam ne fii lañ nekk ñëw di fenn di leen nax te ñu amuñu benn solo si dëkk bi te soxna Xadi wax naa ko ko te jigéen la boo xam ne mën na góor te lii mu def nii rek exemple la si ndax wax naa man wax na seen takku wax na seen pësteef kon fas yéene ñoo ànd ak yéen jàppale leen taxawu leen ngir seen soxla ñu si mën a faj ñu faj ko. loo xam ne mën naa de àgg si président na nañ ko ko àggale mu fajal leen ko ni mu koy yeneen jigéen yi nga xam ne ñu ngi nekk Touba ñu ngi leen di encouragé nag di leen ñaanaat ngeen takku ànd ak pësteef ngeen wax ak ñëpp képp koo xam ne war naa mën a woote. soxna Xadi xam naa loolu nanu ko nanañ si ànd ak moom liggéey ko ndax ñu ngi jëm si lu am solo muy campagne bi ngeen jël seen carte électeur wooteel ko président muy benn bokk yaakaar ngir président Macky Sall am majorité assemblée loolu moo doonoon suñuy tànk si dëkk bi nelawatuñu yendawuñu ngir loolu président Macky Sall yàlla defal ko si ndam si baaxub Sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom nañ yaakaar kon yéen jigéen ñi nag am ngeen si solo te ñoo ngi leen koy ñaan si turu soxna Khady Gueye ngeen ànd doon benn ngir président Macky Sall am ndam di leen wax nag ne man ñëwuma fi wax rek comme ni ko politiciens yi di def daal di dem dig leen fii may wax ak yéen ñëw naa ngir si turu Soxna Xadi indil leen financement boo xam ne da ngeen koy wëlbati yéen jigéen ñi seen biir si lu toll loo xam ne téeméeri junni yoo xam ne danañ ko jox Soxna Xadi mu teg ko seen loxo loolu tàmbali la pour jox leen wante bu ñu demee ba si élection yi bëgg nañ ngeen jël seen carte électeur jox ko président bala loolu di xew nañ leen gën a taxaw gën leen a jàppale wante fii ñu wax ak yéen nañ jël téeméeri junni jox ko soxna Khady Gueye mu jox leen ko ngeen koy wëlbati seen biir ngir président Macky Sall bu ñu demee ba si élection yi ngeen jox ko seen carte électeur moo am majorité assemblée. may wax opposition bi nga xam ne ñoom ñoo taxaw si ñi leen jiite te ñun ñëpp xam nañ leen ne intérêt personnel moo tax ñu ne dañuy taal Sénégal Sénégal nag ñoom tuuti nañ si taal ko may woo jigéen ñi. di woo parents yi di woo jeunesse bi ngeen xam ne réew mi suñum réew la di réewu Ousmane Sonko di réewu Barthélémy Dias di réewu di réewu Déthié di réew xalifa Sall réew mi réewu Sénégal la ñun ñoo yeewoo si réew mi yor fi ñuy doom yor fi ñuy soxna yéen jigéen ñi ngeen yor fi seen doom yor fi seen i borom kër kon buñ leen woo si fitna nag ñëw leen taal dëkk bi li am am na mooy dañoo dem yëpp ñu daal di koy jox li si mbirum yoon yoon atte na kon nañu respecté loi réew mi bu defee ñu jëm si élection képp ku yàlla jox ndam ñu xam ne suñu borom jox na na wante opposition boobu di wax naan dañuy taal dëkk bi suba maa ngi lancé appel ministre ministre de l'intérieur muy Antoine Diome moom lañ jox sécurité réew mi président teg ko si loxoom képp ku bëgg a taal réew mi wala yàq alalu sénégalais yi nañ la jàpp yóbbu la fa mbaxana doon benn ñu xam ne citoyen nga te situwaaye dafa war a yem ak ñëpp ndax réew mi lañ am te duñ nangu kenn taal te incha allahu rabbi réew mi jàmm rek moo fi am loolu ma leen koy yëgal ndax Serigne Touba ngi Sénégal El Hadj Malick Baye Niass ak maam Limamou Laye kon jàmm rek mooy am kon nañ ñëpp dalal seen xel xam ne opposition bi bëgg a réew mi loolu du am bu soobee suñu borom nañ dem tëdd nelaw. te dem wax ak askan wi loolu mooy liggéey bi bu fekkee jox nañ leen majorité alhamdulilah te ñaanuñu yàlla ñu am majorité te loolu xam nañ si dara ndax askan bi wedd nañ leen ndax dañ doon jàppale si askan wi di fenn. dinaa loolu amatul nag nañ dem wax ak askan wi wax seen programme comme ni ko waa benn bokk yaakaar di defee jege askan wi jàppale leen ngir bu élection jotee keroog le dimanche président Macky Sall daal am majorité bu mot sëkk assemblée loolu lañ si wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh